bokki taalibe yi. nee na ak bokki taalibe yi. mi ngi yëkkati suñu kàddu. nee na mi ngi yëkkati kàddoom. ci ndigalul kilifa jataay bi. nee na ci ndigalul kilifal jataay bi toog. di gi. nee na di boroom kër gi. nee na di sëriñ see Ahmadou Mbacke. nee na mi nga xam ne moo fi jëmmi sëriñ Sooyibu. nee na mi ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool. nee na ta ànd ak wér. ab xolam. nee na ndax ab xolam. nee na ak pëstéefam ci Serigne Touba. ak yéeneem ñëpp jàmm. nee na ak yéeneem ñëpp jàmm. nangul ay kilifaam. nee na ak nangul ay kilifaam. seeral la soo xam ne xam nañ ko ci moom. nee na seeral soo xam ne ñëpp xam nañ ko ci moom. wax naa ko jotalee kàddu yu cant. mu ne mu wax ko ne ko na ko jottaleel ay kàddu lay cant. ci ñi fi ñëwoon julli si. nee na ci ñi fi ñëwoon julli si. tàmbalee bi nag ci rakkam Serigne Abdou nee na mi ngi tàmbalee nuyoo bi ci rakkam Serigne Abdou Samad son bu. nee na ak mbooleem jabootuk sëriñ Touba gi di ay kilifaam nekk fi. ndax bi mu fi nekkee. nee na ndax moom bi mu fi nekkee. nee na moom toogal fi Serigne son bu. nee na xam na ne ñépp ay rakkam lan. nee na moo jaboote. moo leen itam. nee na moo leen war a taxawu itamit. moo tax mu ne nee na mboolem bu jur. nee jur. yëkkati jox la. nee na yëkkati na ab kar jox la. ci biir Madiyaana. na ci nee na moom sëriñ bi lim ci jublu woon nag. lii fi sëriñ Abdou Samad def tey. nee na lii fi sëriñ Abdou Samad def tey rek moom la ci jublu woon. muy kenn ku ci nekk. muy kenn ku ci nekk. def nee na nga def fa jumaa def fa daara def fa kër taxaw fa taxawaayu nee na taxaw fa taxawaayam sëriñ son yu sëriñ Abdou Samad mi sant nee na sëriñ Abdou Samad sëriñ bi nee na mi ngi lay sant lii nga xam ne defal nga ko lislaam lii nee na nga dàkk ci bëgg ak sëriñ Touba dàkk ci bëgg ak yu nee na dàkk ci bëgg ak sëriñ son yu daje nga nee na daje nga ci ngërëmam na ndax moom nee ndax sa digg ak moom nee xam nga démb xam nga tey. nee na mu wax sëriñ Basiru ne ko yow mii xam nga démb xam nga tey. waaye dafa yàgg. nee na waaye diggam moom dafa yàgg. meloon ni sëriñ Abdou nee na ba sëriñ Abdou Samad meloon ni doomi sëriñ Seex. daanaka moo def taawam na daanaka rek mooy ab taawam kon. taxoo woon ak lool. nee na taxoo sëriñ Seex ko lool. ba nee na ba léegi ni tey. lu lu na lu baax lu nekk it ñu ànd ko mook sëriñ Seex. kër Serigne yi bu daara ja. nee na ba ñuy nekk ca kër Serigne Son yi bu ca daara ja. Serigne bi néewu fi. nee na boobu Serigne Seex mi moom nekku fa. waaye saa itam. nee na waaye saa bu ma saa ñëw ca kër ga. topp ci ginnaawam. nee na Serigne Abdou Samad mooy topp ci ginnaawam. nee na loolu kon lu yàgg yàgg la. nee na mi ngi lay ñaanal. nee yàgg sa mag yëpp. nee na yàgg sa mag yëpp. ak sa rakk yëpp. l'islam nee ngeen yag taxawul l'islam yag taxaway taxaway serigne soyou yi yag taxaway taxaway serigne soyou waxtu julli nak bu xasse jall nee waxtu julli nak bu xasse jall sun borom dafa tinki ñep nee sun borom mom dafa daal tinki ñep iza isa qudiyati salaatu nee fa so isa qudiyati salatu fantashiru fil ardi fantasilu fil ardi wabtaxoo min fadlillah wabtaxoo min fadlillah nee kon day melni xasee ba rek. nee na bu nu xasee ba sëlmal rek. nee na ñëpp danoo war a jóg. waaye nag wabtaxu min fadlillaahi. nee na wabtaxu min fadlillaahi. nee na loolu nag. Serigne Son bi mu nettali nee na Serigne Son bi moom mi mas naa dégg mu nettali ne. nee na moom mii ci làmmiñu Serigne Son bi la ko déggee. nee na dafa am ku ñuy wax Amit Aan. ñëwoon ci Serigne Touba. nee na ñëwoon ci Serigne Touba. nee na ànd ak ñaari doomam. nee di ko jébbal si. ko ne ko kii nee mu wax ko ne ko ki item jep item jep moy jang alxuraan mooy jàng alxuraan ak jàngale ko sëriñ bi ne ko nee na sëriñ bu ne ko sëriñ touba ne ko ne ko sëriñ touba ne ko tul fihim tijaratun wala bayhun an sikrillah mu ne ko ki ci des itamit ci wàllu commerce lay yëngatu ci walu commerce mom lay yëngatu moo ma féetewoo ci wàllu kër gi. nee na moom mu ne ko kii moomu ma féetewoo ci wàllu kër gi. sëriñ bi ne ko wa aaxiroona. sëriñ bi ne ko wa aaxiroona. yaddiroona bil xardi. yabtaxoo min fadlillaahi. nee na kon looloo waral. nee na moo tax sëñ bii nee na moo tax mu sañcee dolli ay kàddu. nee na ndax jàkka. Serigne Fall waxee ci xutba bi. nee na ni ko Serigne Fall Mbàkke mi waxee ci xutba bi. rasulillahi dafa wax ne. nee na rasulillahi dafa wax ne. suñu borom bu doon amam néeg ci kaw suuf. nee na suñu borom bu doon amam néeg ci kaw suuf. na jàkka doon. nee na ña nekk di fa jaamu nee na ña nekk di fa jaamu yàlla nag. na ñoom ñoo koy dundal. nee na kon. tabax jàkka. nee na kon tabax jàkka. suñu borom dële. nee na li ci suñu borom dële. man banaa man banaa lillaahi. مسجد بيتنا ولا مسجد مسجد ولا بيت رك واحد هوته نينا اختلاف داف تي ووته رك ولو كما في حس القسا نينا ولو لمن كما في حس القسا كما في القسا دافا واخني نينا دافا واخني كو تبخال يالا نينا كو تبخال يالا اب نيك كو تولوني تاغوم بيتي تام نينا بو تولني تاغوم بيتي بن الله له قصرا في الجنه نينا بن الله قصرا في الجنه ab néeg nee na suñu borom dana ko tabaxal ab néeg. ab pale ab bu pale ca ëllëgee ca àjjana. ci ñëpp góorgóorlu. nee na ne ci ñëpp góor te xam ne Serigne nee na te ne Serigne Touba. fu mu mas fu mu mas a sànci. la mu fa nee na la mu fa njëkk a ñaan. mooy néegu yàlla. waxoon ci matlabul fawsayni. nee na waxoon ca matlabul fawsayni. wa tusbitan. wa tusbitan. fiihi jamaatun fi fiihi jamaatin tuqiim. asalawaatil xamsa. asalawaatil xamsa. dahban yaa hakiim. dahban yaa hakiim. kon képp ku yàlla nee na kon képp ku ko yàlla mën loo. nga nee na nga fexe ba tabax jàkka. mu bañ a nekk allazina taxasoo masjidan. nee na mu war a nekk allazina taxasoo masjidan. diraaran. diraaran. wa kufran. wa tafriqan. baynan mu'minin wa irsaanan nee na lool it lu mat a bàyyi xel la nee na lu bari ci jamono ji la nee na nam xam ne jàkka yi nee na bu ñu koy tabax ne yàlla rek suñ borom tax nee na te suñ borom kat moom moom néeg bi lépp kon kuñ ko mën a tuddee itam nee na lépp luñ ko mën a dàkkantal tudde ko nee na néegub yàlla rek la nee na wa annal masaajida lillaahi fala tadxu ahadan moo tax nee na moo tax la masjidin ussisa la masjidin ussisa ala taqwa ala taqwa mina lawlil aq yowmal xaq an fii an taquuma fii kon nag sëriñ nee na kon yow sëriñ Abdou Samad li sa tabax jàkk nee na li layal sa tabax jàkk bi nee na ginnaaw boo ci amee sa ndigalal kilifa ki fi nekkal ki fi nekkal sëriñ Touba nee na du waxe bakkanam mukk lim la nee na li la sëriñ Muntaxa seeral démb ci jàkk ji nee na doy na sëkk nee na yow sëñ Abdou Samad sëñ Muntaxa nee na ba mu la xamee ba tey xam na ne am nga cër ci nee na xam na ne am nga cër bu rëy ci seen Touba moo nga def ko ci lu baax nee na moo tax lu mu gis nga def ko ci lu baax nee na du ko bett ci yow nee na comme lii firnde la ci loolu. te ci. nee na te xam ne bokk na ci. fay yi sëriñ Touba yi ko suñu nee na bokk na ci fay yi sëriñ Touba fay yi ko suñu borom fayee lii bokk na ci. ndax nekk na ci géej ga. ndax nee na sëriñ Touba nekk na ci géej ga. tabax yenn euh, ay bant. nee na samp ay bant wërale ko. fu nee na sëriñ tubaa moom fu mas a nekk rek jàkka la koy def. gouverneur bu ñëw daaneel bant ya. nee na gouverneur bu ñëw daane bant ya. yee sànni ko ci biir wanag. nee na jël bant yee sànni ko ca wanag. ku ñuy nee na ku ñuy wax yelli sëy. mu fekk ko fa. nee na mu fekk fa jataay ba. di nee na muy xuloo gouverneur. suba ba nee na ca suba ba ngoon. Serigne Touba nee na. nee na nee na. diis ci nee na loolu diis ci moom lool. mu taalif ak nee na mu taalal taalif ak xasida. tënke mu tënke ko rabbana axraj naa. aasihi alxariti zalimi ahluha min aasihi alxariti alxaasim daal daal di ne nee na daal di koy tàmbalee ci raditu nee na raditu anil mawla taala lasi rabba taala lasi rabba fuadi nee na fuadi wa axnaani akrim bihi wa nee na kon nee na ba mu ko ñaanee suñu borom nee na ba mu àggee ci loxo tub salaatan maa salaami bi haalihi wa ashaabihi wajxal bihi masjidi raxba nee na sunu borom xamal ko ne ko nee na ñu ne ko nangu nañ sag ñaan nee na sëñ sunu borom ne ko may naa la ñaari juma nee na benn bi ci njaareem nee na ba ca des tuuba teg nee na bu tuub bu tuub bu njaareem bii tamit sëriñ bi ne ko di nga ci teg sa bët suñu borom. yelli sëy nee na. nee na nee na. bi sëriñ bi ñibbi seen njaareem. nee na bi sëriñ Touba ñibbi seen njaareem. jaar gànnaar. nee na ba jaar gànnaar. jaar ci yéen. ba ñibbi si njaareem. ba tabax jumaa ji. ba tabax nee na yëlli sëy nee na ma ñëw fa. sëriñ boole ko sëñ Modou Lamine nee na sëñ Touba boole ko sëñ Modou Lamine Guèye Dagana. sëñ Modou Diop Dagana. wër jumaa ja ne ko demal wër jumaa ja ba dellusiwaat nee na ba mu dellusiwaat mu ne nu mu def ak sama bant yow mi doon xuloo ngir man na sëñ Tuubaa fàttali ko ne ko sa jumaa sama jumaa ji nu def ak sama bant ya nga doon xuloo ma sampoon kon nag jumaa yëpp nee na kon jumaa yi yëpp ba dëkk bi nee na bu demee ba dëkk bi ay téeméeri ay téeméeri jumaa am fi kon ñaanuk sëriñ Tuubaa nangu bi nee na ngi jeexale foofu kàddu yi

dan laa wax loo joxe kàddu ne naa ko nee na bu ko sëriñ si Ahmadou Mbacke joxe kàddu ne ko na ko waxal ko. faaw mu nee na faaw mu jéem. na mu gën a rafete na mu ko bëggee. nee na ndax la ko sëriñ bi bëggee mënu koo jot. asalaamaaleykum. nee na wasalaamaaleykum. wa rahmatullahi wa barakaatu. amiin sëñ Bamba.